Bonjour, comment vous allez, les amis Ça fait un plaisir de vous revoir. En fait, je, vous, tenais à vous dire que nous avons déménagé. En ce moment, on se trouve à Wessefar, dans les Sec. Pour les vidéos, ceux qui demandent le parti français, on est travaillé sur cela. Bientôt, vous aurez tous les deux versions, en français et en Wolof. Merci.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 خالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي ارشدا مبكي جوليت يو باخ تيدي نيغي لين نوي بو باخ باخ تا دي لين شياري نيغي لين جاجيفال نيغي رافيتلو بو باخ اند بي اند نيون سا سوني سي ليغي بي اك باي خيل غين باي خيل سين سين بي دي طلب الحلم الاسرار ak safo génn safo yu baax yi liñ ci digalal ak yittewoo génn fiitewoo ñu ngi leen ci bah bu baax di leen ci gërëm ñu ngi nuyu bu baax baax baax papa Alpha di nuyu bu grand grand Dakar ñu di di nuyu bu baax euh, di nuyu bu baax baax baax maam làmp dëkk Grand Dakar ñu ngi koy siyaar bu wér te di di nuyu mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi ci euh, euh, di topp suñuy vidéo ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax te di leen siyaare su ko defee tey mbokk yi nga xamante ni dañu daan dañu daan ñëw di ñu fekk ci euh, Zac Mbao Zac Mbao foofu la ñu nekkoon ci ginnaaw bi ñu jógee Touba foofu lañu nekkoon. waaye euh, sax mbaaw euh, clients yi sax fu ñu nekk fu ñu nekk sax ñu ñëw fu waaye dañoo gis ne foofu dafa xaw a sori ci ñoom ndaxte dangay gis bu doon bu ñu wàccee ci télé bi sax dañuy xaw a dugg ci biir tuuti loolu mooy xaw a bari te foofu daanaka oto oto du fa ne du nekk euh, ba jàmbat bi baree bu ñu ñëwee bu ñu egsee li mu njëkk wax fii da xaw naa xëcc tuuti nga xam ne bu ko kenn nit rek wax ko. bu ko ñu ñu bari waxee dangay xam ne ah kon lii da dëgg la te ñoom seen bànneex rek ngay dab mooy client yi moo waral ñu ñëwal leen fii Ouest pour gën a leen a jege pour foo xamante nii doo sonn boo xasee wàcc doo sonn dox lu bari pour egsi ci kër gi Ouest Foire euh, ci tëliwaale bi rek ci tëliwaale sec bi soo ñëwee ba tël Wally Seck bi boo weesoo immeuble boobu rek immeuble bi Wally Seck dëkkoon da nga gis benn dibitiri dibitiri mbedd moomu nag bul jàdd ci mbedd dibitiri bi beneen mbedd mi ci ngay jàdd soo jàddee ci mbedd moom nag boo continuer tuuti rek boo wootee euh, da ngay tase ki la jël si incha allah euh, noonu daal la leen ko bi nga xamal léegi ñu ngi ñu ngi Ouest Foire ñu ngi Ouest Foire ba tey en même yi dafa bëri ñuy woo même dañ koy def ci commentaire yi sax nan leen koy defal france nan leen koy defal français nan leen koy defal français ndax ñu ko ne benn langue rek mooy dox ci àdduna bi te YouTube monde entier la ñëpp ñoo koy suivre léegi nag ñu bare bare di demande loolu kon nag àq la ak yelleef ñu indi leen seen bëgg-bëgg yooyu moo tax ñu taxawal leen seen bëgg-bëgg bëgg di leen defal vidéo bi euh, ñaari partie premier partie bi en wolof la doon deuxième partie bi en français. su ko defee ngeen koy bàyyi xel bu baax a baax baax incha allah dina tàmbali balaa yàgg rek incha allah ci biti semaine bi su ko defee tey dama leen euh, indil loo xamante ni gépp góor boo xamante ni bëgg na soxna soxna xaw koo të wala bépp jigéen boo xamante ni bëgg na jëkkër jëkkër xaw koo të secret boobu laa leen indil tey ku bëgg jaba jëkkër wala ku bëgg euh, soxna secret boobu laa indi incha allah. bu ngeen gisee nag mbind mi nekk ci suuf li ma bind fi mi ngi nii ku bëgg borom kër dong la loolu dinaa ko wax ci wolof comme bokk ci ndax day ñoo xamante ni léewale min mi ci suuf bu ko dara xawee làq sax dañ lay wone loolu fay ñu ndax ci la bokk waaye lay bokk ci aay bi lii dong li mooy lii muy bëgg a jàng wala tamut dan tamuddanna nekk ilaa maa matta'naa bihi jan minhum shahratal xayaati dunia لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامرح لك بالصراط واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق ولا حول للتقوى آي بفوف لام لب ليرنا فينا ñaar yoon nga koy bind man nga ko bind ñett yoon wala juróom ñaar yoon en tout cas daal boo ko bind na tool wala juróom ñaar yoon soo ko bind na tool su ko su ko moom nga koy ewe doo ko ewe der doo ko ëwee dara morceau portable bu weex lañ koy ewe soo paree nga takk ko loolu su yàlla dogalee nga def ko comme noonu ñu la ko waxee balaa yàgg rek balaa yàgg rek da nga am borom kër wala balaa yàgg da nga am soxna lii lu siiw siiw la lu bari bari njëriñ la lu wér a wér la maa ngi tilimut sax la nga daa tuddee tilimut lii indi baatu tilimut bi mooy bu weex nga koy ëwee xam nga morso bu weex ku ne xam ne daa gaaw a tilim léegi boo ko wee morso bu weex bala moo tilim dañuy wax ne bala moo tilim da am borom kër waaw bala moo tilim da nga am da nga am da am soxna bu dee góor ko def bala moo tilim dana am soxna bu dee jëngee ko balaa tili balaa téerewee tilim danga am danga am borom kër moo tax mag ngi daa ko tilimut lu wér a la képp koo xam ne daal soxna xaw na koo jafe dem na fu ne ñu koy dàq ak di ko xeeb ak di ko kii ak yu mel noonu. moom la def lii rek xool soxna sa gën soxna soxnaam sa bëgg lay am bu dee koo xamante ne tamit ba jigéen la mm, aasam mi ngi dem te amagul borom kër la def lii xool waa ju baax ju bari xaalis bari barke yë man koo yërëm man koo yor la yàlla di indil soob yàlla allah kon tey lii la leen indil su ko defee ngeen di gën di bàyyi xel vidéo yi Eh, te leen xamal léegi daal ñu ngi Ouest Foire Ouest Foire su ko defee jërë njëf jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa